ay deux la wala un. deux la la la. parce que affaire la la. deux zéro la. un un la wala deux. Ama Sène mu ngi leen di mu ngi leen di seetaan en direct dama bëgg ngeen yëngal Ama Sène yaramam daw. Ama Sène. Ama Sène. deux zéro. waaw. Modou Lo Ama Sène taxaw na de. ah après. Ama Sène taxaw na nga naan may après. waaw mais Modou Lo moo ko bëre. daa ko bëre fuuf. un un un. deux zéro deux. deux zéro waaw. ndox du bàyyi yoonam. kon Eumeu Sène. bis ba incha allah dañ koy jàpp revanche lan ngay wax. yàlla may ñu rek. Ah. moom rek lañ. da nga seetlu de ah? doy na waar de. si. maa ngi fi rek. Eumeu Sène di a ah, di ñaan yàlla may ñu dam rek ndax Eumeu Sène moom xam na ne Modou Lo daanoon na ko waaye bu ko jàppaatee du yomb. Modou Lo. ah Modou Lo xam na ne moos day jël defet bi rek dem toog këram. waaw waaw. loolu loolu loolu sarax la woon rek. asaka la woon rek waaye du yomb. na takk fitam piki na ngi ñëw dal seen kaw. ah mais Modou moo mun a amoo. loolu ñëpp xam nañ ko. Modou day daan Eumeu Sène de yaa ngi dégg wax Eumeu Sène na xam ni Modou Lo du moroomam Eumeu Sène na xam ni Modou Lo moo ko mun moo ko ëpp doole. Eumeu Sène roi des arènes la de. waaw bi parcelle la ñibbi si. roi bu le fanaan. parcelle de incha allah. Eumeu Sène gaynde gu màgget la. daa war a toog parcelle di nag 1-1 la door fooy sama maam du ma ku ma timis xaar ma géewe te ama yet xam ni virij vrai jaga moo koy faj affaire bi 1-1 la virij vrai ma ko jàppee loxo dana tër gémmiñ yuuxu Modou Lo ko may dara da doon publicité course mu dem Balla Gaye juutal ko bañ ko juutalee ba léegi Sénégal dafa uumu Modou Lo nag dina ko def lu ko wuyu am na seen. am na seen bu jéem a jël am na seen am na seen amul yoola yoola am na seen xam nga luy dóor fayu xam mais man dama koy dóor te dama koy dóor dóoraat ko muy 2-0. ma Eumeu Sène koy def. première sortie mu daanu moom moom moom mooy roi des arènes bu koy def première sortie mu daan amu moo koy def. moo dafa am ci lu mu jugee dañ koy ñaanal yàlla ko yàlla may ndam bu set wicc. kaan tamit boobu léegi dafa yàgg waaye roi bi dafa war a ñëw parcelle waaye ka ah dafa jot waaye ka ah da nga xam ne un un la waaw un un laa la wax nag laa la wax. Dakar su soob ñaari yoon. da ngay bëri Modou Lo di lekk ay ay crème. Modou Lo la. Modou Lo la ñuy màcc nii. moom la ñuy màcc dañ koy màcc. Modou Lo day dóore de grand. dañ koy màcc ni ñuy def crème ji lañ koy def nii. grand Modou Lo day dóore de. Modou Lo du dërëm. du dërëm. Modou Lo nee na mag ngeen. Eumeu Sène lañu wax. mais waa nan bàyyi ba combat bi jàll. nañ bàyyi ba mu jàll. Ah. waaw. loo leen di moytu ci euh, Modou Lo. dara gisuñu dara la ñuy moytu ci Modou Lo. li ñu manqué woon ci làmb jëm moom la ñuy mottali rek xam nga duñ ko juutal mais du ma ko wax garaawal. amit na ko dóor daan ko bu soobee yàlla. ah Modou daan ko jëlee bu rëy woon benn werante incha allah ñuy ndam fii parcelle loolu. Eumeu Sène mooy roi des arènes de. mais roi des arènes mais roi des arènes dañ ko war a moom 2019 bi lañ ko war a jël. Eumeu Sène Modou Lo la wax. ah xaañ jàpp ko daan ko jëlee bu rëy rek. a a ñoo ko man baax roi bi dow ko huit défaites la am huit défaites am na da koy daan 2-0. Modou Lo da koy daan 2-0. dafa xew. ah waaw Baye bu Modou lay mën na ëmb seen waaw waaw Modou Lo day daan Modou waaw. kan mooy daan Modou Lo. mais ëmb seen mooy roi des arènes. non non Modou Lo avec Modou Lo. avec Modou Lo. waaw waaw. la wax Modou Lo. man yàlla am jàmm rek. ndam bat suñ Fallou. oui bat maam Sara Fall am jàmm rek suñ Fallou la ñuy wax. waaw bat maam Sara Fall. waaw waaw. ah ah xoolal ëmb seen da ngay jox yow ah la koy jox booy. ay coombaras coombaras ko mu loolu a koy jàpp ko mu loolu. yow da nga tiit da nga tiit. non dama ni affaire bi 1-1 la. da nga tiit seen la wala ale boo gis am na. Modou Lo bëri bagage. boo gis am na retour. ale boo gis am na retour. nga ni nga ni. Modou Lo ñoo xeebu jàpp daan ko. mais Modou Lo Modou Lo rek lay def. ñun dañu boobaa dañu koy duma daan ko. bisil bi wasil bisil bi ñooy ñëw dal si kaw mu daanu. lan mooy wasil bisil. wasil bisil après si kanam si kanam lañ koy xam. ah là là ah ah na jóg na jóg na jóg na jóg na jóg